l'ensemble des dépenses qu'il faut pour permettre à ces structures-là de démarrer. Mais également, il fallait réfléchir sur les sources de revenus. Au-delà de la subvention éventuelle de l'État, est-ce qu'il y a des, sources de, ressources propres sur lesquelles euh, le complexe pourrait se baser pour supporter ces dépenses-là C'est extrêmement important parce qu'en réalité, toutes les structures euh, de renom, en tout cas, établissent des budgets annuels pour dérouler leurs, dépenses respectives. L'autre aspect également, c'était que on devait également produire un extrait de manuel. L'extrait de manuel euh, est aussi important, sinon plus important <laughs> que le, budget, parce que ça euh, doit permettre à l'ensemble du personnel de l'administration qui sera là dans un moyen court terme de savoir les procédures à dérouler, en tout cas pour assurer une bonne gestion du complexe. Donc ça, le, le marabout y tenait vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on tend vraiment à, imiter les, standards internationaux. Et c'était important qu'au-delà du budget, que l'équipe d'experts qui a été conviée à ce travail-là puisse euh, réfléchir en tout cas à définir, comme je l'ai dit tout à l'heure, les, différentes procédures à, adopter euh, pour atteindre les objectifs euh, fixés. Maintenant, je le disais à la fin de la rencontre que Aussitôt ce travail-là fini, il va nous falloir très rapidement aller vers l'élaboration du plan stratégique. Parce que ce plan stratégique-là devrait permettre, euh, dans, une logique de, moyen terme, 3-5 ans, de savoir les objectifs que le complexe va se fixer par rapport euh, au nombre d'apprenants, par rapport peut-être aux, objectifs, en tout cas, aux résultats à atteindre dans un, moyen terme, mais également par rapport aux sources de revenus, comme je l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, le plan stratégique permet globalement, pour le complexe, dans, euh, un délai relativement court, de se fixer des, objectifs, mais également d'estimer, de, en tout cas, les sources de revenus sur lesquelles il devrait se baser pour, atteindre ces résultats-là. Assalamu alaikum wa nek chef de service finance UFR CRAC ci université Gaston Berger bu Saint-Louis waaw ñi ngi ñi ngi santaat yàlla bu baax tey jii ñi ngi fi daje woon euh, ci njital Serigne Ahmadou Badawi ak ci invitation Serigne Morfay Faye euh, amal fi liggéey bo xamné travail de restitution mu jëm ci liggéey bo xamné ne nañu ko mu jëm ci defar euh, projet de budget démarrage complexe Cheikh Ahmadoul Khadim liggéey bi nak biñ koy dooro tambali tàmbali ñëwoon nañ fi dajé fi ak serigne Ahmed Badawi mi nga xamné mom liggéey bi yépp bañ ko tàmbalee léegi ñu ak moom ñoo ko ànd guddeeg bëccëg suba ngoon euh, ñu ñëwoon fi daje daje fii tamit comme sama naataango bi ni mu ko waxee sànq ci dubaab ngir am li nga xam ne moo doon euh, laltaayu liggéey boobu mu jëm ci wàllu information maanaam ñëwoon nañ fi collecté fi ay information yoo xam ne comme ñun liggéey bi dañ koo dab ñu jël ay information yoo xam ne moo ñu moo ñu may ñu mën a defar liggéey bi nga xam ne tey jii moom lañ moom lañ doon jébbale joxoon nañ sax document bi sëñ bi fan yee waaye xew-xew yi amuñ ci diggante moo taxoon mu waxoon ñu nañ bàyyi ba tey jii ñu daje fi ndax ñu gën a leeral liggéey bi ndax nga liggéey moom boo ko boo ko bindee ci këyit tamit dana jar yenn saa yi maanaam daje ngir gën koo leeral ndax këyit gi mën naa bañ a euh, fësal lépp li nga xam ne moom lañ ciy soxla waaye daal budget bi moom ñu xam ne mooy ni ko ñëpp xamee rek ay xayma yu jëm ci wàllu wàllu koom koom moom bu ñu ko dajalee ba noppi tamit fu mu lu muy fu muy war a dem ci wàllu dépense maanaam fi ñu koy jëlee ak fi muy dugg ci liy doxal liggéey bi liggéey complexe bi xam naa foofu tamit ci wàllu communication rek damay damay damay damay profito leeral ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu ni maanaam ñu baree baree bari njuumte bi ñuy xaw a def tuuti te te te xam naa ne loolu noon noonu la maanaam du université dong maanaam complexe la. complexe bi am na pàcc boo xam ne njàngum alxuraan la am na pàcc boo xam ne tamit euh, njàngum majalis la mooy science euh, traditionnelle di mu door a am nag enseignement supérieur ñu bare nag moom la ñuy wax rek université. moom la ñuy appellation boobu la ñuy joxe waaye ñu xam ne ñett yooyu yëpp ñoo ci daje moo tax mu doon complexe loolu moom day mat a day day mat a leeral liggéey bi tamit comme ni ma ko waxee sànq rek maanaam tey jii lañ ko doon jébale xam naa euh, biñ ci waxtaanee ak sëñ bi tamit moom am na ay gis-gis yu yu yu gën a leer suñu yos yoo xam ne jooxal na ko ci yoo xam ne dana jar bu ñu delloo ñu ñu ñu intégré ko ndax ñu mën a joxe benn document boo xam ne mooy mooy doon document final bi. am na tamit benn mémo boo xam ne defaale nañ ko muy wax tuuti ci ni ñi ni ñuy ni ñuy doxale ci ci wàllu fonction fonctionnement surtout finance ak administration boobu tamit am na liggéey bu am solo bu ci mbokk taalibe yi def xam naa boobu tamit dana jar euh, ñu ñu ñu finaliser waale ko nga xam ne document bu buñ koy buñ koy joxee ñaar ñëw ñëpp ñooy ñooy ànd ñu mën koo jébal sëriñ bi waaye daal ñu xam naa dañuy tëjee ci foo xam ne moom lañu waroon a tàmbalee muy muy ñaanal sëriñ bi sëriñ mu Mountakha ñu ngi koy ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal yii nga xam ne yëpp sumb na ko te bii bokk ci te te boo doon yi ko gën a yitteel moom suñu borom defal ko ci tawféex yoo xam ne dana dana ko ci am ak i ndam fekke ko ci gudd fan ko ànd ak wér lool ak eh, mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi te ñun ñii ñun ñi nga xam ne ñoo doon liggéey liggéey bi ñu gën cee jàpp gën cee ràññee sëñ Ahmed Badawi mii nga xam ne ni ma ko waxee sànq rek maanaam guddeeg bëccëg suba ngoon ñu ñooy an liggéey bi ak sëriñ Mor fay mii sëñ moor mii it naa ko beral ak can ndax moom euh, daanaka heure bu ne sax lañ koy woo moom amul amul téléphone am duñ ko tëjal liggéey bi moom wax dëgg yàlla taxawaay boobu lañ taxaw xam naa ci sant yi tamit sëñ Bousso mii tamit <laughs> danaa ko ci boole ndax euh, maanaam moom tamit yaatal nañ lool ci ci ci barab bi maanaam saa yu ñëwee bu ko wooyee heure bu nekk lañ koy woo tamit te dañuy yaatal xam naa loolu moom

directeur de l'audit interne de l'Université Gaston Berger pour le comité des experts yu ñëwoon fi di projet de budget bi comme waxe ñun nañ parce que projet complexe khadimul Sénégal d'ici wéru at ci réew Afrique parce que réew dañuy tambalil si tout tank ku jël sa tout tank yoral lak ba université ci walum xam-xam ci walum yar ci walum liguey donc am ken amul fayam donc nak li ñu ngi ci ñaan kep ko xamantene ne si ndaw ñor na la rew pour mu dem il faut pour nga tabax rew il faut nga tambal ci ci tout tank yi donc señ bi wane na yoon bi donc ñun ñep nañ nañ ci jaar bu bu ko defé fi ak ay at suñu réew gën ci réew mi donc loolu mom wax dëgg yàlla ñu ngi si sant sëñ bu baaxa baaxa baaxa baax parce que wax dëgg yàlla mu ngi defal mu ngi defal suñu aduna di defal suñu àllaaxira parce que tey ñun ñëpp képp am nañ njabot mais suñu sañoon suñu njabot moo ñuy gën donc ku la ibbil bunt boobu amoo payam donc loolu moom wax dëgg yàlla loolu moom sama xol laa ko tibbee yàlla ñu ko yàlla fayal loolu moom yàlla ñu ko yàlla fayal jërëjëf. matula man maa ngi Mor Faye professeur Mor Faye euh, nekk membre comité de pilotage élargie euh, complexe Ahmadoul xadim mooy kuréel gi nga xam ne nii euh, moom la si Sëñ Muntaxa taxawal bi mu tàmbalee projet bi Sëñ Ahmad wi jiite ko ak mbokk taali yi nekk ci raw doyen ak jàngalekat yi dëkk bi léegi foofu laa bokk di rafetlu bu baax a baax a baax liggéey bi ñu bokkaat tey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 maa ngi leen nii nuyu nuyu bi gën a yàlla ci ñoom leen siyaar bu baax ah, ah jataay bi nag mm, dafa doon jataay boo xam ne dafa ah, sofu sofu ci jataay yi nga xam ne moo daa am ci invi ci doxeenu eh, université Cheikh Ahmadou bi ndax bañ seetee mm, université bañ ko tàmbalee xalaat ba nëga waxtu wu nekk bañ ko tàmbalee xalaat ba nëga ni eh, ne jataay yi ñu ngi doon am moo xam muy ay commission wala muy jotaay ordinaire yoo xam ne dañ ci woo ñeneen waaye waxtu ne jotaay mos sañ kaam kon bu amee tey jëm ci wàllu xayma euh, ci wàllu finance ak budget euh, itam dafay mel ne euh, dara ci jotaay ëpp solo ci la bokk ndax nit mënul di ndox ci lu mel nii te waajaloo budget am waajaloo nan nga mën a def ba am noo ko noo ko noo ko yore eh, boo fexee ba am ni nga ko yore it dafa baax nga xam eh, ba am ni nga ko yore dafa baax nga xam ni nga ko yore dafa baax it waxtu wu nekk nga xam li nga ca weesu foo ca toll ak la nga ca jublu ci sa kanam nu mu war a tëddee kon door mooy jotaay bi te loolu te loolu mënta ñàkk te loolu lu am solo la lu am solo la ndax li jiitu lépp def nañ ay eh, commission yu bari dafa ci wax ci walu éducation euh, walu walu académie bi walu jangale mi walu étude yi yépp def nañ ko ma sha allah yépp tegu na ci yoon mu dé ci walu tabax gi alhamdullah lepp mi gëna a tegu ci yoon sa su euh waye lo lepp nak li nga xam moy tax mu man ko mu mëna taxaw ak tankam yu lolu moy jotaay bi ak di ci juddoo kon jotaay bi jotaay bu am solo la leen ci nuyu bu baax leen ci ndokkeel bu baax di ñaan yàlla mu ubbi ko ci jàmm waaye jataay bii itam jur njëriñ yi nga xam ne moom lañ ci doon seenu leen jaajëfal yéen ñëpp seen coono ak seen déplacement ak seen xam-xam bi yéen indaale te nar ko fay yónnee ak yéen a ji loolu lépp ñu ngi leen ci ndokkeel leen ci sant bu baax leen ci gërëm ci tur bi di nuyu commission yëpp nag yi nga xam ne ñoo yàgg liggéey ci université bi yëpp ci wàllu étude bi leen ci gërëm duñ leen fàtte benn yoon ndax euh, yàgg na te boobaak léegi ñoom ñëpp ñu ngi ci te kenn du daw kenn du dang daay waaye ñu beral ran ñu beral nag cant ak nuyoo ak ziar nag sëñ Ahmadou mii nga xam ne moom yàlla moom yàllaa ko nattoo industrie bi ndax euh, moom commission yi dañuy bari bari da dafa mel ne amul benn commission buy daje boo xam ne moom am na droit bañ ko bañ koo teewee commission yëpp da koy teewee wala boog buñ noppee dañ koy rendre compte mbaa li ci ëpp boo gisee ndaje commission bu ne la ëpp ci say daje da koy fekk te bu ko fekkee itam daf koy assister ba ca njëlbeen ga ba ca muñ ko mu mel ne kon université bi ñun ñëpp la war a xañ jot te ñun ñëpp la xañ jot sax xëy na waaye moom moo ci raw kon moom loolu ajana itam ñu ñu préciser leen ko bu baax leeral leen ko bu ngeen xam fi mu toll ñaa jotaay bii xay xëy na ñàkkul ñeneen ñoo xam ne war nañ ko mën a fekkee te tey jii ñu ngi nii moom moom ngeen fi gis waaye nag alhamdulilah rabbil alamin ci ak matam ak euh, ni ko sëñ bi tànn ak ni ko sëñ bi seetloo ba tànn ko tax na doy na ñëpp doy na nu bu baax ci ci moom rek mu teew ci jotaay bi euh, sëñ bi doyloo na ko ci ñi mu liggéey bi macha allah ñoom doyloo na ko ci ba ci man mi sama bopp jotaay yi ci ëpp du ma ko fekke waaye day ak fekkeem daf may suur xam may doy sëkk ba ma gëm ne fekk googu teewalaale na ñëpp kon loolu mooy li nga xam ne mooy li am tey kon daal ci gàttal euh, liggéey bi am na solo euh, ñu ngi leen di wax euh, waa leen góor jaa leen jëf joo xam ne soññe la maanaam di courage lañ koy tuddee waaye ma wax leen ne di courage nañu góorgóorlu bu baax gën a dem ci kanam te li ngeen wax léegi maanaam jéego avenir la jéego bu am avenir la moo xam ne ci kanam incha allahu ñun ñëpp daanu jëriñ euh, ñun lim nuy jëriñ mooy xam ne taxawal gi bokk nañ ci ndax bëri ko mbartal boo xam ne boo tegee sa loxo boo tegul sa mu dem boo ko fekkee ba mën caa teg sa loxo da ngaa war a sant yàlla kon ñun lim nuy jëriñ mooy loolu ñu am ci tiyaaba ji euh, xam ne bokk nañ ñu ko taxawal waaye ña koy jëriñoo dëgg mooy sunu njaboot suñuy doom ak suñuy sët dana tàmbali sax tey balaa yàgg ñu tàmbali njaboot gi ñu gis leen ñu ngi waaye ñoo koy gën a jëriñoo kon daal alhamdulilah sëñ mi ngi lay sant di gërëm di sant commission yëpp waaye yéen ñi fi teew itam ci war a waxtaan ci wàllu finance war ko koo càmbar ni nga xam noonu la war a demee dëgg-dëgg te kenn ku nekk ci yéen fa mu jógee loolu la fay liggéeye te la mu fa yorit la fay la mu fay liggéey ca loolu it moo ko jiite wala mu ci ña jiite loolu wax dëgg yàlla sëñ Tuubaa rek mu am lool moo mën a am loolu loolu yi loolu loolu loolu yombul waaw kon daal ci gàttal ñi ngi doolee sant sëñ bi doolee sant sëñ Tuubaa baax sant sëñ bi nga xam ne moo nu moo nekk ci bopp yoon wi tey te yàlla dogal xalaatam bu njëkk ci biir liggéey bi muy liggéeyal sëñ Tuubaa nekk ci bopp bi liggéeyam xalaatam bu njëkk di lii di université bi ngeen ñëw jàppale ko ci yéen ñëpp kon moom it ñu ngi koy sant waaye ñu ngi leen di sant ñu ngi sant commission yi ñu sant sëñ a bu baax a baax a baax maa ngi koy defal defal naa ko léegi ab benn contrat bu ndaw ci lañ doon dox ci loolu waaye alhamdulilah rabbil alamin sëñ bi sant nañ la gërëm nañ la la jéggalu ci eh, <laughs> gàtt gi ak eh, yéex gi ñëw yëpp ñu ngi ci jéggalu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكتي سنو كادو ديكو تامبلي جي سنو نيو بسد بسال بتد داك سنو بزيار ديكو جمالي جي أشياء محمد المنتقى نيان سنو بروم باي كوفيتا ماي كوفير بلي مو يني لجي يل الإسلام جي تولو بسرين بي لب مومان كو دف نمو كو بغي تنو أنو كو أكموم دي أمبك تموري جي تواتي جتاي بي مو بو أمسلو نيكو سرين مام تيار نو لاجي jataay boo xam ne dafa sofu rek ci liggéey yi nga xam ne ñu ngi ko doon def ba sëriñ bi joxe ndigal ci liggéeyam bii ba fi mu nekk ni yaatuwaayu liggéey bi nag moo tax mu doon ay kuréel yu bari ay commission yu bëree bari ba daanaka ay bis bu jot rek dana am ñu daje ay bis bu jot rek dana am ñu daje ñu bokk ak ñu daje woon waaye liggéey bi moo yaatoo moo yaatoo noonu moo amee solo noonu tey nag ñi tase woon mooy ñi nga xam ne ñooy xayma koppar yi nga xam ne moom la soxla ngir mën a doxal liggéey bi ak koppar yooyu fu nu koy jëlee ak buñ ko jëlee ba noppi naka lañ koy jëfandikoo waaye tëral ay yoon yoo xam ne ñi nga xam ne ñoo koy jëfandikoo itam dana mën a am ñu nekkaat ci seen biir di ko saytu ba bu nu noppee nu man ne kat nangam lañ soxla woon nangam lañ am nangam ak nangam lañ ci def ñi ko doon def itam nii lañ ko defee mu doon lu am solo nag ci jamono ji nu toll ndax niñ koy waxee daare Cheikhuna Ahmadul Xadim daare juy jàngale la dafay jàngale mboolem fànn nay dunduk doomu aadama moo tax ni ñuy yore lu ñëpp bokk itam daa bokk ci li ñu war a jàngale fii kon lii ngeen doon def tey bokk na ci li jàngale loolu alhamdulilahi rabbil alamin ni ko sëriñ bi waxee léegi ay boroomi xam-xam daje fi yoo xam ne yemuñu ci doon ay boroomi xam-xam waaye dañoo doon ñoo xam ne dañuy jëfandikoo liñ soxla fi mu nekk nii moom kenn ku ci ne fa mu nekk ci université euh, Gaston Berger ak université virtuelle am na itam ñu ngeen di jokkal ñu nekk université Cheikh Anta ñu nekk université Bambey muy ñi xam ne ñoo nekk ci université sénégalais yi di yor liggéey boobu xam ni mi doxee ñoo doon tëral nag bii naka la war a doxee loolu kon ñu ngi ci sant professeur Mor Faye mi nga xam ne ci commission pédagogique bi la bokk waaye nag féete ndar gis nañ ne moom waa ndar da leen a beral loxo seenu njàmbaar ak seen pas-pas waaye moom itam beral na leen loxo lool ci liggéey bi kon ñu ngi ko ciy sant bu baax di ko ci gërëm di wane ne bi Cheikh Mouhamadul Mountakha yëkkatee kàddoom am solo yooyee jëmee ko ci woote liggéeyub Cheikhul Khadim bii nga xam ne nu ñu koy waxee wax waxtu wu ne modèle éducatif wala système éducatif la boo xam ne mooy bu sëriñ bi waaye mooy bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na mu dikkee woon rek am na boroom xam-xam bu tagg sëriñ bi ne ko antal murabbi kama rabbal aminu ni nga xam ne noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon yare noonu ngay yare kon yow yaay jàngale ni nga xam ne yoon noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngalee xarfan bi xarfin la ci teg maanaam njàngalem sëriñ bi mooy njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon daaray sëriñ bi mooy daaray lislaam yoo xam ne dara raxu raxu ko loolee nag moo tax ba bi sëriñ bi yëkkatee kàddoom mboolem bokki taalibe yi ñëpp jóg ak ak seen kàttan ak seen pas-pas fekk si ko ku nekk ci wàll gam amee loolee nag kon day baax loolee ñuy indi itam ñu teg ko ci yoon woo xam ne ñëpp danañ xam ne li ko taxoon a jóg fii la fii mi ngi ci dem nam ca war a demee loolu kon seen liggéey bi bu ama am solo la boo xam ne ni may togné waxtu wu ne commission bu dajé mané len bi mo ci ëpp solo waye seen bop bi nak mo ëpp solo moom loolu ñëwé ñoome ko wax ci kaw mo fi nga mën ta kon ñi ngi len di sant bax den gërëm ci li ngeen def lu rëy la ndax itam bayyi seen yité bayyi seen jógal seen bop ñëw di def rek xidma ngir xidma xidma moy nga def lu bax te yalla rek tax te loolu moy tasawuf moy ihsan di jëf ngir yalla te yalla rek tax loolu moy li ngeen def te lu lu ama am solo la yëkëti seen xam-xam waye yëkëti seen jëm seen tank